asalaamaaleykum mbokku Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew di leen jox seen wàccuwaay di wax ne tey jii maa ngi rafetlu lool génnuk prison président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye fay samay rakk samay xarit di wax ne loolu lañ doon xeex weer yi passé yëpp. yàlla may nañu ci ndam ñu ne alhamdulilahi rabil alamina may wax rek ne nag bépp prisonnier politique bu nekk ci kaso bi dañ ko war a génne Sénégal bi ñu ko bëggee tabax mu nekk Sénégal bu démocratie nañ ñu génn ñëpp ñu ànd liggéey suñu réew Sénégal li ñu war a jëkk a commencé mooy wàññi dund gi bu ñu wàññee dund gi ba pare dinaa defar industrialisation boo nga xam ne nii xale yi daañu am liggéey ñu defar njàng mi defar santé bi defaraat mbay mi parce que réew boo xam ne nii mbay moo ko war a yore bu mbay mi yorewul réew mi rek koom bi dina sooxe te xam nga ne Sénégal tey jii mbay mi defar sooxe torop torop torop defar mbay mi defar napp gi defar sàmb gi defar transport bi fexe ba senegal lépp loo xam ne nii dafa laaj ci jumtuwaay luy rafet dëkk rafetal dëkk bi di ko taaral ñu jublu ci te loolu nag dafa laaj ñu am giitu réew boo xam ne nii day jubal day wax dëgg seen askan bi di ko dox senegal wane xarkanam bu bees moo tax may ñaan yàlla le 24 mars 2024 bu ngeen ma falee dënk ma réew mi dinaa fexe ba Sénégal nekk dëkku valeur dëkku valeur boobu mooy dëkk boo xam ne nii njiiti réew mi day jub njiiti réew mi day nekk di koo xam ne nii kuy liggéeyal Sénégal la ku soxlawul alalu senegal la ku loxoom set wecc la loolu moo tax ma jàpp ne njiiti réew moomum war na fexe ba ñu jooyante yàqu-yàq yi nga xam ne nii bëri na ci réew mi njiiti réew moom war na fexe ba fexe ba Sénégal yëpp nekk benn ñu joxante loxo ànd liggéey suñu am réew bokk Sénégal boobu nag moo tax kenn warul fooy alalu réew mi loolu moo tax dinaa xeex ger bokk Sénégal boobu moo tax président de la dafa war a yërëm askan bi ci lii laa leen di woo te ma jàpp ne lii ma leen di woo bu ñu ko defee Sénégal dina wane beneen xar kanam bu ñu ko defee Sénégal dina nekk ci weneen yoon muy yoon boo nga xam ne nii dina gën a suuxat diine ji gën a suuxat xol ñu ànd ñu ñëpp bokk ndey bokk baay ñu ñëpp ñoo nekk benn maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen woo yoon boobu